d'accord te justice bi moom amuñu problème. procureur am problème. procureur yi moom ñoo ñooy problème mu régime yi mais du justice bi. ndax magistrat yi moom dañuy àtte seen àqulaay taala. àtte seen intime conviction. ministre de l'intérieur nag moom moom moom mooy pire problème moom réew man daal affaire yi jaaxal na ma trop ne ko Ousmane Sonko taxawee naan ko maa sa patron maa lay digal ngay def pas bu toll nii. Hmm. Ousmane Diagne mi te mu naan ko maay sa patron du baa sant su ma waxee da war a def waxul dara de moom ah, la moom mooy politique ñun politique ñu ba léegi démissionné wuñ kër ah, loolu da ngaa bëgg mu démissionné ci wax si est-ce que Diomaye falu ko président Diomaye mais président Diomaye la falee mooy ah, moom mu ngi nii su ma leen santee da ngeen war a def mhm. su ma leen teree da war a baax mbete jaam. teg na ci it ne danaa wax dans vingt quatre heures laa may njiitu réew mi ndax wax naa ko yéen seen. waaw vingt quatre heures après ñu xooy ci guddi gi ñu gis ñu dem jàppi ay nit indi c'est-à-dire mooy seen kilifa quand même. Euh, fële ca ndar de jàpp nañ euh, loo xam ne quatre. ramas man de li ñu def ndar moom raafal laa ko tudde raafal. maanaam génn ramas rek koo dajal for yóbbu. ah waaye bañ quatre vingt et un personnes ya soixante dix sept yëpp. gar ah, fële lañ bokk ci ñoom Barth lañ. réalité man damaa jàpp ne lëndëm googu sax Barth lañ doon rëbb hmm. parce que lëndëm googu noo mën a braqué oto ci kaw tali am na ñu oto yi bu la teel seen sax mën na daw ba ne tañax sa kaw quand même. am na ñu ne mbër moomu di Zarko ci la bokk te ñan jàpp ndax ci coalition sàmm sàmm sa kàddu bi la bokk. ah waaw bu ko neexee. Hmm. bokk ci sécurité bi. Hmm. xam nga mbër yu bari nag eh, trêve bi. waaye sécurité de Barth mii daal lu man na ko doole ci sécurité. Hmm. parce que waa ah, Pastef ñii. am na sécurité Pastef am nañ gendarmerie am police. am lépp. Mhm. si man ke démb bi ma rombee Abbas Fall ak ruqam bu bon bee la fa nekk ci oto gendarme. Mhm. man damaa yaakaaroon dafa am terroriste bu ñu fay jàpp si. Hmm? ndekete Abbas rek la ñuy ku tekkiwul dara Ndakaaru ab xam daa ñëw ñu luyee ko Ndakaaru mu ne moo ko moom. est que du kàddu yi mu yëkkati. na maanaam génne leen paaka yi jaas yi ak lépp lu ngeen. ah du loolu lañ koy aaree tam moom nag dafa mel ni violence bi mën nañ ne ci moom la njëkk ndax moom moo njëkk a génn lu ay paaka i ah, jaas paaka yeeg jaas yi moom moo ko ah, génn loolu moom dëgg dëgg nag ba mu waxee ba tey nag yëf fi dafa commencé mel ni paaka yeeg jaas yeeg rato yeeg sémmiñ waaw mooma lépp lu ngeen am rek kay abasa loo ko waxal mooma abasa de ah, moo ko wax de moo ko waaw moom waxama waaye daal yàlla yàlla yërëm Sénégal daal ñu dem ci élection yeeg jàmm ak salaam ngeer dafa am koo xam ne dafa jege Ousmane Sonko yëkkati kàddu yoo xam ne euh, njaareem tuubaa Mbacke Sénégal gépp dañ koo ñaawlu ndax fa mu bokk muy coro waaw coro man du ma ko wax ceex coro laa koy wax xam nga lu tax ku xool góor bu mu toog kàddu yi ñëpp a ko ñaawlu de ak lu mu ci jublu rek Sénégal rafetlu wuñ kàddu yi mu ne yow usmaan Sonko man ab jéeg laa sama sëy bi muy bi nga xamante ni namm naa koo def ak yow ma nekk ci nii gaa ñi ñaanal leen ma ba du ma fay du ma daw du ma daay. subhanallah xam nga Cheikh Thioro day ab dof. ah dofu de wax doxi dof de li mu bëgg la wax. wuy ma daa dof sol sa mbubb mu rafet. sol sa kaala gu rafet taxut a nekk nit hmm. dof yaa ngi ci biir nit ñi Pastef dafa bari dof hmm. ku ci wax nga taf sa gémmiñ biram su lay waxee nga taf bu Fadilou Keita waxee nga Cheikh Thioro waxee Ousmane sax bu waxee nga taf sa gémmiñ hmm. Pastef moo bari dof bari ay ay ay ay ay dundal sax ay ignorant ay figurant ay raté am na ku ne Pastef mooy revanche ñi raté mooy dëgg nan nan kooku est-ce que leen rek. dëgg la. dafa bari ay maanaam ay revanche ñu raté la daa am ñu raté daal di ñëw def revanche ci passif xam nañ ne parti la boo xam ne xol bu bon kañaan tasug mbokk yàqub der mën a sos ci parti bi la fekk baax te ñi raté nag jikko yooyu lañuy am jikko yooyu ku ko am raté hmm. revanche ñi raté la ak ignorant yi. ndax ñàkk a xam bokk na mm. ci maanaam ñàkk a dof ñàkk a xam boo waxee taf sa gémmiñ mm-hmm. am na ñoo xam ne sëñ Cheikh nee dañ leen war a fay ñuy wax sëñ Cheikh Tall Maktoum nee na mm. waaye am na ñoo xam ne dañ leen war a fay ñu noppi mm. Cheikh Thioro mii jëla bokk dañ ko war a fay mu noppi Cheikh Thioro li mu wax sedd na Cheikh Thioro dem na fi ba ne ku fekke woon jamonoy sëñ Touba mm-hmm. ku fekk jamono bii ñuy bundu xatal Ousmane Sonko te xeexoo boo fekkoon jamonoy sëñ Touba doo xeex man a fen mm-hmm. <laughs> xoolal ma woow fen wu di ko dendaleeg koo xam ne. kii mm. Cheikh Thioro bu ma wax la waay. ëpp naa def sëñ Touba am morom. sëñ Touba. Mm. Mm. nga naan ko fekkee woon jamonoy sëñ Touba. c'est déet euh, leen ni coow la Touba ak. ba naan ku sa ndey liggéeyul. yaay bañ Sonko. ndax am na ci yenn. ay ma xoolal ma yii fen yu rëy. am na ñenn ci ay doom ma leer na ma sama ndey gën a liggéey nday Cheikh Thioro te man daf maa boole ci saagam woowu hmm. bu ma rusutoon ñi ñuy seetaan nag dinaa ah, ko wax loo xam ne weñ mu ci dal ñaata kilifa yow ñëpp ñoo la war a bëgg hmm. yow da ngay maanaam yow politique la nit ñi contre contre la ndax Ousmane nga tudd déedéet contre la hmm. am na sëriñ yoo xam ne gisuñu loolu yow nga ne yaayi ñooñu ñu kii kii mooy moo ne dépp naa de subhanallah kii dafa xamadi aago yu muñ ah, saale naa bañ gisee rek te nga bañ ko waaw moom kay dinaa ko jël yenn gars yi man kër Ndiaye Macky Sall da ko dem jëli indi ko waaw comprendre la ay nit ay borom xam-xam nga mhm. jël leen boole nag nii même bu fekkee ni sax dañuy nekk seen SG mhm. wala ñu nekk xam nga mhm. SG mooy koo xam ne presque mooy secretaire général lu ministère la yooyu au moins mu jàng ci moom benn six mois di ko kotuwaay yu xam ko won ko ay affaire parce que man dama jàpp ni Sénégal ñun ñëpp ko bokk amul benn ministre sénégalais tey jii même ñii bu ñun bu ñu jàppee ne aayuñu sax man dama gëm ni bëgg Sénégal moo tax tey ñu jël risque. Mhm. ñëw pour nekk ay ministre mhm. dëgg la nag ministre am na ay privilèges yu ci nekk di nga am xam nga yenn affaires yi notoriété bi wala yenn affaires yi. Mhm. xam nga mais c'est des gens yoo xam ni bëgg nañ liggéeyal Sénégal. donc nag tey su fekkee ni ay nit la yu bëgg a liggéeyal Sénégal te yow bëgguloo lor Sénégal. li ngay def mooy indi leen. teg leen ci watu nit ku am expérience un homme expérimenté. au moins ñoom ñu jege ko xaw a jàng ci moom nga xam ne bis bu lu ñu teg rek. ñëpp dañ naan gongo. Mhm. parce Sénégal dafa nekk benn vitrine. du réew mu rëy rëy rëy ci Afrique mais Sénégal réew la moo xam ni ñu bëri dañuy jàng ci ñun. Mhm. te li ñuy jàng ci ñun mooy jikko yu baax mooy intellectualité bi nga xam ni. Mhm. suñu intellectuels yi am nañ ko. est xam nga la donc warul nekk loo xam ni pusoloo boo xam ne mag ñi dañ ko fi bara bàyyi. muy réer ci seen loxo. donc nag tey ma euh, kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko lu mu gën a gaaw. pour xool nan lay fexee ba kotuwaayu ay nit yoo xam ne tey jii mën nañ ko uuf uuf Sénégal yóbbu ko fu sori man daf may gënal. d'accord parce que man dama jàpp ni normalement gouvernement bi mhm. ah mhm. temps de vie am jeex na. Mhm. Euh, remaniement moom day am dem nañ élection ba pare. man li may ñaan le président de la république mooy mu def remaniement le plus rapidement possible. Mm-hmm. Mm-hmm. am na nit yoo xam ni da leen di yenn ñetti ministère mm-hmm. xam nga tey lu mel ni ministère des sports ministère de la culture. ak ministère jeunesse. nga boole ko jox ko benn nit. man dama jàpp ni ministère boobu war nañ ko mën a tas. xam nga am xam nga ay gouvernement de trente personnes di ko tiitaroo man pour man même bu ñu nekkee quarante personnes yu liggéey baax na. mais au moins. parce que train de vie de l'état lañ bëgg a wàññi. Mhm. mais nag dina am ay peut-être ay. failles après am na yeneen i nomination yu am dafay yokk ëpp na lañ doon wax. voilà parce que vingt cinq lañ tàmbalee ñaata lañ toll. instant bi ci xaw ma ay ah, trente et ah, donc nag ah. politique de jeunesse bi. dañ ko war a def. te politique de jeunesse mënuñu ko def sans ministère la jeunesse. Mhm. ministère la jeunesse à dañu war a jël un jeune dynamique. ku am xam-xam ñu dénk ko ko. culture tam nga dénk ko ku am xam-xam culture nga ko ku am xam-xam. Mhm. voilà sport nag nga dénk ko un homme boo xam sport ñu ngi fi ku xam sport ñu xam sport ñu ngi fi mhm. tey jii waxuma ko parce que mhm. euh, Matar Ba suma xarit la mhm. mais c'est quelqu'un boo xam ne amul xas ci réew mi am na lu mu def ci réew mi. Hmm. est-ce que la. te tey jii euh, kenn mësu ko dégg mu wax Sonko lu ñaaw. Hmm. kenn mësu ko dégg mu wax Macky Sall lu ñaaw kenn mësu ko dégg mu am ak benn problème Sénégal tànk tey ñu mel noonu ñu nekk ci réew mi nii am xam-xam Sénégalais yi mën leen jëriñoo après ñu bàyyi leen noonu parce que non ci état bi lañ bokkoon wala dara. Hmm. expertise bi fu mu nekk dem leen ngeen jëli ko. fal nañ leen résultat la leen Sénégalais laaj ku leen wax ne leen kii bokkuloon ci projet bu bon fontoo. eh ñun xamal lan ngeen ñu laaj. man maa leen leen woon koo leen far tànk ak tànk mbaga mbagg c'est vrai mhm. mais bàyyi leen ma nag ma def sama équipe mhm. liggéey bu heure résultat jotee su ma leen joxul résultat bu la neexee ngeen gaas mhm. man daal conseil boobu laa leen di jox